auzubillahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim allahuma salli ala sayyidina muhammad nabi lumi wala alihi wa sahbihi wa xadimihi wa sallama tasliman auzubillah bismillah inni walillah salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuhu mbokk internet yi nga xamante ne yéenay teewlu seen télé bi nga xamante ne mooy sa TV ñuy amaat mbégte gu yaatu yaatu dellu si waat ci sunu jotaay yi nga xamante ne moom na leen faral di dëgtal saa su lépp itam aju ci xamante ne mooy xew jamono aju itam ci li nga xamante ne mooy nekkinu doomu aadama yi ci biir jamono ak fi jamono toll ak naka la dëpp télé bi nga xamante ne mooy seen biir ay xam-xam bi ci biir télé bi nga xamante ne mooy euh, nee leen solution moo leen di indil solution ndax solution rek moo koy tax a jóg ndax mbooleem lu ñu fi waxtaan ba nopp lu ngeen fi dégg ñu waxtaan ko fi ay bi muy Cheikh Moustapha Dieye dëkk fii ci case des Tout-Petits bu Ouest Foire wax dëgg yàlla di benn adresse boo xamante ni kull ku ko xam tam moom nga ko xamee donc li ñuy fàttaliwaat saa su ne mënu mm-hmm. cee ñàkk mm-hmm. moom la ñuy faral di fegool ci biir jotaay yi li mm-hmm. lépp itam ngir solution bu ñu apporteel askanu Sénégal rawatina mbokk Sénégal yi nga xamante ni ñu nga ca bitim réew ku mën a jëriñ tubaab nag sa mbokk moom matuta wax moo waral ñu am yëg-yëgu saa su ne di ko seetsi di waxtaan ak moom ci li nga xamante ni mooy xam-xam ndax nee naa xam-xam moom xaw ma bokk ci mhm. te suñu koo laaj tam lu mu ne xaw ma ko mhm. kon macha allah ñu ngi koy nuyuwaat bu baax a baax di ko ziar waaye tam di ziar bu baax a baax euh, bokkante no yi nga xamante ne ñoo taamu am sa mhm. TV la télévision euh, ci seen li nga xam ne seen kóolute di la ñaanal kenn ku ci ne lépp lu mu xool daal yal na yàlla sama borom dajale ko ci mu doon tawféex doon ngërëm doon ndimbal ci jëmmam joojee macha allah rabbi Cheikh Moustapha nuyu nañ la bu baax a baax waaye ziyaare waat la itam macha allah naan la salaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatuhu ñi ngi ziar ñëpp macha allah di baalu àq ñëpp tey ñaanal ñëpp waaye di sant ñëpp di gërëm ñëpp rawatina ñi niy teewlu ci internet bi ak fudul foofe fi ñu ko yaakaari di bàyyi xel lool dinu déglu lool ci loo xam ni yéene la yëg-yëg la mhm. yaakaar la xol bu rafet la mhm. yàlla na leen yàlla fayal boppam ci barke Yonent bi sallallahu di ñaanal ñi tëdd ci hôpital yi yàlla defal leen wér mhm. di ñaanal ñi tëdd ci biir suuf yàlla na leen yàlla yërëm te xaari leen aljanna di ñaanal ñi caabi féete ginnaaw yàlla na leen yàlla teggeel seeni nattu waaye di ñaanal ñi nekk ci àll bi ngir daan seen doole mhm. ngir yóbbu ci seeni mbokk ngir bañ a jaay seen ngor ngir wóolu yàlla ak yonent bi rek ba mu jaral leen di ci daj lu ne mhm. léeg-léeg nu dund fitna gu doy waar ci réew ya mhm. léeg ku leen waral yab sax yab leen waaye nu jël lépp yaboo ko ngir lan ngir bañ yaakaar ju tas seen digganteeg seeni mbokk ak seenug réew ñu leen di ñaanal yàlla sama boroom dimbali leen taxawu leen ba lan fay wut yàlla nañu ko teel a am tamu doon seen jiglaay ci darajey rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ba nanu demee ak seen sago it mu ñibbee ak seen sago ci jàmm ak salaam seex taala asalaamaaleykum wa rahmatullah maaleykum salaam wa rahmatullah Cheikh Moustapha ci nuyoo bu am solo bi waaye ci ñaan yi yal na yàlla sama borom defal ñu ci dégg waaye bu ci defee dégg itam yàlla ñu def ak topp nangul ñu ko te ful ko wax dëgg yàlla wàcce waat ko ci booleem jaamam ñi macha allah rabbi ziyaare waat law ba ziyaare waat ñëpp Cheikh Moustapha fi ma bëgg ñu waxtaan ci tey bokk na ci lam mooy waral mbokk bu bon mhm. ndax dañu seetlu tey ci jamono yi mhm. xeetu ñaaw ñaaw yi nga xam ne mi ngi am ci biir famille mhm. ci biir société bi mhm. ci diggante ndey ak doom mhm. ci diggante mag ak rakk ci diggante baay ak nangam Cheikh Moustapha ci réew mi ñu nekk lan moo war a mën a waral loolu ak lan moo ko war a mën a jar ci àdduna bi ñu nekk xanaa day di ndokkale bépp jullit ak képp ko fekke laylatul xaddari xayrul minaal fi shahri mm-hmm. di ndokkale bu baax a baax. macha allah di ñaan yàlla. Mm-hmm. yàlla na sama boroom boole ni ci ñun ñépp ci ñenuy jéggal amiin bi jaay Seydina Muhammad yàlla na nu boole ci ñi nga xam ne xaaj bay fekk déwéni déwén amiin yaa rabbal aalamiin ma léeg-léeg gaañe ne xaaj buy fekk déwén hmm. waaye xaaj buy fekk ay déwéni déwén ay déwéni déwén macha allah yàlla nañ ko yàlla defal amiin yaa rabbal aalamiin waaye kum ci fekk nga tawat yàlla na nga wér amiin yaa rabbal kum ci fekk nga jaaxle yàlla na ci yàlla dindi amiin Seex Taala mbokk mu bon hmm. moo raw bëñ bu bon moo raw poson Mm-hmm. wallahi moo ko raw Seex Taala mbokk mu bon nag dañu naan kañ lay jeex waaye am na mm-hmm. yonent bi sallallahu alayhi ñu ko doon def fitna ñépp ay mbokkam la <laughs> ku ci participer sax sa mbokk la ay mbokkam a ko woo cest à mooy kaay leen nu xeex ko gi sax mm-hmm. ay mbokkam ñooy woote mbokki jaamur waaye ay mbokkam a koy jiite kon bon yàgg na fi mbokk mu bon bu nu nee fal nan la mhm. mooy njëkk ni amut <laughs> xaw ma dégg nga wax jëm déet de buñ nee nañ la mooy nee fal nan la mhm. mbokk mu bon mooy njëkk ni nu amut buñ nee imaam la mhm. ne kii kay dojjiite ndaxte saay saay la moo koy njëkk wax nag ndeysaan <laughs> ndax yéene wu la ko xanaa xamoo koo dégg ni nu liggéey nañu ko ci suuf ba mu dugg ci biir suuf ngir suuf su mu doon xëccoo boo xoolee ba ca biir ci biiri mbokk lay jóge déglul wax ji de <laughs> waaw ndax xam nga lan moo tax bu la jekkoo mu garaaw mhm. dafa xam reen bi xam taatu garab gi xam car yi xam bànqaas yi ba xam sax rabu garab ga faf mooy xam ne nit ki xami bagaasam xam yéppam fépp la am nag ñenn ñee ci jot rek ñenn ñi jotonu ci ndax am na ku lay iñaane waaye daa mënul jot ci yow ba xëpp la la bëgg a xëpp waaye nee la mbokk mu bon moo lay njëkk jéen sàcc waaw mbokk mu bon muy njëkk a tas sa sëy billaahi am na ñu koy dund Cheikh Talla mbokk mu bon moo lay génnee ci réew mi waaye gëmal ni mbokk mu bono lay fekk ngay liggéey ci Amérique xëy nga bind démission ne bàyyi naa daal bokk sax saak bàyyi fa loo fa mas a am ñëw toog mu lay xool di ree naan la da dellu gannaaw te billaahi moo la delloo gannaaw mbokk mu bon a koy dund ak nit mbokk mu bon muy tiim sa bàmmeel di la jëw mm-hmm. ci jamono jin lay denc yàlla bu nu ni dencoo dara mu ni ah kon bon a ngi yegg ba foofu noonu fi romb na ko ndax mbokk mu bon weesuwut nga bokk ak nit ndey ak baay mhm. moo faatoo mhm. nga jël alalam teg ci tànk di ko xañ ak njabootam am na ñu koy dund du jeex du xaaj ah. mhm. <laughs> mbokkam jaamur doonut mbokk koy def <laughs> mbokkam mu bon a ngi si diw dama koy jël mu ni diw de ni ma ko xamee doo ko jël te ki lay ki lay yàq ba jëlunu la sa mbokk lay doon ñu ngi koy dund am na ñu koy dund ci société bi mbokk mu bon a ngi noonu Cheikh Tall yaa ma laaj nag laaj bu doy waa mhm. laaj boo xam ni ay ko xam li yàlla wax ci mbokk mu mhm. <laughs> newee ci yow ay waay taal gaas sax taxul jàngoro ji faju waaye <laughs> mbokk mu bon a ngi noonu Cheikh Tall mhm. mbokk mu bon mooy fekk nga am lu baax muy suuli gàllaaj si sa immeuble mhm. di suuli gàllaaj ba immeuble bi xëy rek daaneel ne naan liggéey baa baaxut gis nga balaa muy daaneel immeuble bi yow mii borom kër gi lay njëkk daaneel ndax teg na la tawat joo xam ni puus puus moo la fiy jaar te wallaahi boo xamoon ni ba ngay tabax immeuble bi mhm. tawat gi dana la dab jarul nga ngay yéeg ci étage yëgoo ko sentiroo ko da ngay xëy rek say cër bañ ndekete yoo mhm. la fa suulu moom la mbokk mu bon mooy dem wuti gàllaaj goo xam ni darit lay àndal mu koy raax sa miir bi boo dee boroom xel nga toxalal sa njaboot te xam ni sacrifice na leen te yëgoo ko mbokk mu bon da koy def mbokkaa la man jekku ah, ndax mooy dugg sa kër doo ne ko génnal mm-hmm. yegg pénétrer la foo xamante ni fii mu ne kenn du fa yegg waaye nee naa la mm-hmm. <laughs> mooy fexe ba nu dugal la ca kees sa Italie indi la ndax gor su tukki mhm. di xëy di taab mhm. di xëy ni koy dàq mhm. di xëy amatul lu mu lekk du mën a ñibbi mu koy souffrance ba xëy dee fekk yow gàllaaj gi ko suul a ngi fi ci kees lay mujje dem te yow yaa koy suuli naan moom di ñëw ni ndekk indiwul dara wallahi te yow la mbokk mu bon am na hmm. moo tax ay bun ci bokkul ay nanu ko sante yàlla te hmm. yàlla bun ci bokkul allahumma amiin hmm. am na mbokk mu bon moo naan lu tax waa kër diw am te amuma ay loolu méttiwut méttit mënul weesu bokk nit mu tàqale la ak sa njaboot xanaa xamoo mbokk mu bon dana fekk sax nga am say doom déggoo ak ñoom déggoowul ak njabootam mu fexe yow ba taqale la ak sa njaboot <laughs> lu mu la wax ngay def mbokk mu bon moo weesu nga war a jox sa njaboot sa dépense muñ la bul ko jaarale ci ñoom de ko jaarale ci man <laughs> di fitnaal sa njaboot di leen mbugal te yow sa wàllu bopp sa ñëw ni ci miix ndax fam la dugal kum fa dugal dooni miix ah ak yeneen <laughs> ah ni kenn du ko wax mm-hmm. ah buñ ko waxul xam <laughs> waaye est-ce wax jee solution am na ñoo xam ni bu nu doon jëfandikoo yenn gàllaaj yi mm-hmm. bis bu ne daanu dégg seeni famille ñeent dee na naaw <laughs> nan ko ci doof waaw moo tax am na gàllaaj yoo xam ni danga koy gàntal waaw nit danaan sàñña di la ree mu leer ne la deritam ji bu laaloon suuf sa yaram daw ndax yéen a ko bokk mm-hmm. waaye wallahi bu sañoon dañuy tiim sa jàkk te xamoo loo ko def ak loo ko wax baa loo am bon mbokk mu bon weesuwul sa mbokk ne ca Amérique lu mu liggéey wala ca Italie wala ca Espagne hmm. lu mu liggéey am yéene jël deux cent mille jox la nga koy wër wëree sëriñ si naan na ma ko yokkal bu koy yokkul naa xeex ak moom yàqal ko la mu am si néew mbokk la koy wax de mbokk mooy toog ni la ni doo am jàmm mbokk mooy toog ni la ni sa doom yi bul sonn dunu ma sa tekki taala mbokk mooy toog ni la ni yow xee doo ma sa sëy mbokk mooy toog ni la ni xee doom doo ko ma sa am mbokk la koy wax man dama gisul lu gën a garaaw li ma laaj te tuuti laa la ci compal nit nag su la yéeneetul jàmm hmm. yaa ko mbokkoo waaye doonatul mbokk nanu ko waxat te yàlla ba muy wax mbokk mbokk moomu taxul de waaw mm-hmm. <laughs> ah mbokk mu bon a ngi noonu seex taal mm-hmm. doy na waar doy na waar Cheikh Moustapha parce que <laughs> doy na daal li daal bokk mu bon daal fi mu ne man daal seen ji xaw ma est-ce que est-ce que tey jii fi mu toll nii nit ki jëf yenn jëf yi waxuma la sax mbokk jëf ko mu jëm ci sa moroomu nawle sa moroomu jullit mm-hmm. ci bu ñu bàyyee xel ci wala xadd karam naa bànni aadama rek defe naa ne yellul warul rawatina koo xam ne deret boole deret mais sëñ bi est-ce que kooku mu ngi bi muy def loolu mi ngi koy defee sagom wala mi ngi xalaat ëllëg yan conséquence la ci mën a jëlee mbokkay taxaw ni la kër gi may taawu kër gi mm-hmm. sama loxo lay mujje am na ñu ma ko war a séddool waaye kenn du ci dugg ñépp dañuy xëy di dee ba xëy di dee mbokk la koy wax <laughs> tey nam la ko waxe noonu la koy defe Seex Taala mbokk li yàlla toxoon ñu koy boole ak liñ ci gis léegi du benn mm-hmm. <laughs> du benn moo tax nag li nga laaj ni mm-hmm. mooy loo xam ni kenn xamul sax nan la ko nit mën a expliquer am na ñu koy dund mënuñu ko wax mhm. est-ce que xam nga ni mbokk mu bon mooy yàq sa àdduna te ñeme woo ko wax fenn même boo ko xamee doo ko wax doo ko wax mënoo ko boo ko waxee famille ba tas oh. lu ci bare ci jigéen ñi lay dal ndeysaan duñu ko wax boo ko waxee famille bi tas waaye nag man ñëw ci gën a yërëm mooy hmm. ñi amul fu nu jëm te dëkk ak seeni mbokk ni leen di buggal ba mel ni ni sax dëkkunu ak ba mel ni sax bokkunu ak ñoom dara dara hmm. dara am na ñu koy dund de hmm. wallahi am na ñoo xam ne ñi ngi jeex tàkk ñu ngi feebar bis bu ne buñ demee hôpital ak lañ leen di wax ki leen ni rosé di leen def yooyu mi ngi ci biir kër gi bokk ak ñoom lépp ci àdduna <laughs> boo ko bon a ngi noonu seetaan yàlla nañ ci yàlla musa yàlla nañ ci yàlla musa wallaahi wa rabbul kaaba doy na waar waaye nag ma dolliwaat nit ñi ñaax ni leen mhm. nit ku gis lu bon mhm. fexeel ba jukk mhm. aar sa bopp bul bàyyi ko de bul ni lu ma ci man de ndax kuy jéem ci yow jéemal ci sa bopp bul jéem ci moom nag bàyyi kook yàlla waaye jéemal ci sa bopp waaw ndax nee naa la boo bëggee doon fas doo mel ni mbaam mm-hmm. <laughs> wallaay kese mm-hmm. loolu nag wax la day na ah. sëkk ci wax waaw moo tax nag <laughs> il faut nit ki mm-hmm. bàyyi xel loolu tey sabab lu sax mooy sabab lu baatu sabab lu lay daal di indiwaat surtout loolu waaye mbokk mu bon a ngi noonu seex taala te tey pàcc bu ndaw laa la ci wax suba naa ci wax yeneen yu gën a doy waar xam ne nit ñaa ngi koy dund ci dund ku doy waar mbokk mu bon lay teg lu métti te bis bu ne mu xëy naan la ndax yaa ngi. te loolu loolu loolu est que bon kese la wala dafa ànd ak een. du bon kese <laughs> xam nga yaa ngi tane googu lan. Mhm. mooy kañ ngay dee. waaye loolu <laughs> kañ ngay dee. mbokk mu bon lay liggéey ba nga ñëw toog ci kër gi mun la ndax amaatagoo liggéey ba léegi. <laughs> moo tax. ku daan jëfewul ak yow nen na ni wëlbatiku ko wan la mbaax goo xam ni bon la ko jëkke woon mhm. xoolaatal mbir mi mhm. du dëgg ah, am na lu muy am na lu muy bëgg a mencin waat mhm. te bu ko cencin yow nga yàqu am wérante <laughs> yal nañ ci yàlla musal yal nañ ci yàlla waaw ah, parce que loolu loolu olof di wax naan fi ne jëm jëm jotu la dana seet fa la gën a jege mu jaari xew na dafa doy waar mhm. bokk na ci wax nga ko léegi ci sa biir wax mhm. buñ la sakk sacrifier. baatu sacrifice nit ñi dañ koy dégg rek. mais ba léegi dafa mel ni xamaguñu lan mooy sacrifice. ba pare ndax est-ce que sacrifice tam dafa yem ci tour deret rek wala am na sacrifice yu ñu dul tour deret est-ce que xam nga am na ñoo xam ni buñ la sacrifice bu ñu yégee ni feebar nga doonte ñi ngi ci kër gi duñ la mas a seet si ndax lan loolu bu nu ko defee doot nu ko defati <laughs> xol bi leen may ba mënuñu la seet mm-hmm. moo lay xamal ni am na lu leen tënk am na am na waaw am na mm-hmm. gis nga mun la sacrifice kilo la ko def du la mën a seet mm-hmm. waaw bokkul nag seytaani jàppa la wëlbatiku bëgg ñëw jekkali la du benn <laughs> waaw moo nit am na foo toll boo tawatee bul def ku la jox nga lekk mhm. waaw am na koo xam ni sax bu la seetsee am lu mu la indil nee leen yëkkati leen ko nu yëkkati ngeen leen teg leen ko ne le mhm. bu ko kenn laal mhm. ndax tëral na la waaye doyatu ko lu mu leneen lu mu tëral lay wut <laughs> waaw leneen lay wut moo tax sacrifice googu am na ñu koy def waa am sa aaw mu tawat feebar baa am sa taaw mu tawat feebar nga ne ci kër gi di tegle say tànk di lekk lu la neex te mënoo di xool ndeyam di sonn ci moom te te doo taxaw ni ordonnance ñaatal wala doo ko seet si xam nga li ko dal billaahi xam nga ko mm-hmm. <laughs> waaw gaa xam nga li ko dal kon li ko dal lan la da ngi dal nit ñi nag <laughs> am sa xarit nga digg ci moom lu doy waar mm-hmm. <laughs> buuse woo met jëloo sa téléphone woo ko am na lu xew hmm. waxoo ko nag am na lu xew <laughs> nanu koy wax am na lu xew hmm. <laughs> am na lu xew li xew lan la nag waaw <laughs> am na lu xew même boo deful woon sax yow sa xol sacrifice na hmm. sa xol bi rek sacrifice nga ci ndax seetaan gu ëpp rek sacrifice la waxuma leneen de seetaan gu ëpp rek sacrifice la ndax sacrifice xol koy def. <laughs> waaw yéen nit ki la ba pare. non waaw sa xolo la koy may <laughs> rek sacrifice la. <laughs> waxuma la leneen la nag. jëf ya door a ñëw. waaw kay. moo tax bul ñàkk bañ wóolati ñëpp. Mhm. waaye bul wóolu ñëpp. Mhm. rawatina ki nga xam ni ba nga ko xamee ba léegi lu mu deful sa ndey ci lu bon amut. lu mu deful sa baay ci lu bon amut lu mu la deful ci lu bon amut mu xëy rekk di la defal lu baax mm. nga naan dëgg la mm-hmm. non yàqu nga gis nga boo nangoo xam nga lu muy wut naa la gën a amaat ci ay loxaam ngay deewe sacrifice nag nit mën na ci mucc bu mm-hmm. baax mm-hmm. moo xam mun la ko man defe nag waaye nit mën na cee mucc waaye seetaa la di mhm. ñaa ngi dee ci erreur te man xam naa loolu waaye nag mhm. man na ñàkk lool sax ndax yàlla reyunu ci erreur mhm. ndax bindu nu woon ci erreur te ku te ku nu reyul ci erreur waroo dee ci erreur walla yàlla xam na léegi nag bakkañ ci àdduna moo jaaxal ñëpp ah, na nit ñi yeewu nu nit ñi jug seen bopp na nit ñi bañ a sàgganu xëy di sangoo ndoxum xoromu kese moo ma gënal xëy bañ a sangu <laughs> ci léemaay ah, <laughs> du <laughs> benn ah, dégg ba de jël doñ ju xorom rek tëmbal ko ci ndox di xëppoo ni naan lu muy xëppoo mhm. moo ma taneel ndax lu muy xëppoo moo tax la mu yor la muy xëppoo buñ ca yemee moo ma gënal noonu jàll ci ñaata la yor mhm. ñaata la yor gi moom mën na ma yóbbu yof gi <laughs> moo tax ala kulli xaal mhm. na nit ñi di jàngat mhm. di bàyyi xel mhm. waxuma nag di ñaaw njott mhm. ñaaw njott day indi yeneen détail lu wér lu leer la ñuy wax te lii ñuy wax nit ñaa ngi koy dudd waaw moo tax seetaala il faut seet sa jabar feebar nga yor loo ko faje nga lànk bañ ko faj te tëdd ci ay milliards su wéree nga ñàkk sa milliards yi ay doo ko wax Oh, doo su wéree sa milliards yi. waaw bu wéree nga ñàkk sa milliards yi. kon moom nga tey la ngir milliards yi. ah am na <laughs> am na. moo tax waaw. <laughs> moo tax yàlla nañu yàlla musal. allahumma amiin ah, ah. nit ñi di tey ci mboolooy yi. Mhm. léeg nit ne ci mbooloo gëm benn nit dara xew. mu ëppal ci ba leneen fekk ko ci fekkati yoo sarax sala te yëgu ko mhm, mhm, mhm. moom lañ saraxe waaw ndeysaan moo tax du fu la neex nga toog du fu la neex nga lekk du fu la neex tëdd du fu la neex fanaan du fu la neex nit fanaan na foo xam ni dafa toog ba si yàgg rek yaram wi ni say boobu la gëj a wér oh. <laughs> karaw gi ni say boobu la gëj a wér ci àdduna moom lay lox ba léegi sëriñoo sëriñ wër na fekkite yoo am na lu nu fa miine te yëgu ko wala bàyyi nanu ba mu dandunu def ko fa wala tombe na ci loo xam ni ca fa mu fe fa mu nekk fa la jëmoon moo tax fu nit mën a dem nga xam ko ak nga ñàkk bañ a xam del léemu day saxoo jàpp mhm. surtout jàpp waaw gaa ñi dañ lay topp mhm. dañ lay yàq te xamoo wan jamono la ñuy jóg mhm. yàlla nañu yàlla musal ci ci barke yeneen mi ngi noonu tubaarkaal macha allah rabbi <laughs> amati na solo Cheikh Moustapha xam naa ne léegi moom dinañ ci ut dinañ ci fexe ay thèmes yoo xamante ne def ci ay jotaay yoo xam ne invité oustaz yi tamit ñu ñëw xamuñu tam ah, lan la ci diine indi tamit ndeysaan te yooyu day gën a day gën a day a am solo nañ ñu xaar léegi rek insha allah bu soobee yàlla ñu gis ne tamit euh, rey yi jamono yi dafa bëri mm-hmm. sëñ bi buñ ne bëggoon yi ndaw fukkat ak juróom-ñaar di rey mm-hmm. xabtal yi dana ko def <laughs> ndax léegi seetlu naa sax ni ci réew mii nu ne dafa bare ay féticheur waaw ku néeg tiim ganaar jël balo jël pistolet tiire ko wallahi boo jekkoo doomu aadama def ko da barki yonent bi mm-hmm. ndax xol bi la te am na ñu koy def <laughs> am na hmm. waaye boobu garaawul de hmm? rey gi ni muucu seen derin nag moo tax ne nit ñi xam seen bopp te moytu na nii moytu na ni moytu oh. na moytu ndaxte la ngay fekki fa nga jëm moo lay waral ëllëg ngay dunde loolu ak njaboot mm-hmm. xale bu ndaw léegi ñii ki naaka jàmpaaka am na lu xew mhm. daawul xew de waa ba jamono gënee naqadi mhm. ba xaalis gënee jafe mhm. ba yëre gënee jafe lu mel noonu daawul am est du kon mag ñi dañu daan aaru daan waajalu ñun nu toll foo xam ni waajunu aarunu te ni nu danoo bëgg am jàmm danoo bëgg a am tawféex danoo bëgg a wér ah du nii la wére moo tax il faut nit ñi seetaa la nu jugaat bu baax mm-hmm. gësamuwaat bu baax xoolaat seen bopp bu baax te laaj nan la ñuy def ba mucc mm-hmm. ndax mucc nag am na mm-hmm. <laughs> fu musiba am rek mucc am na ci wet ndax miim yëpp ñëw na waaw <laughs> waaw miim yëpp ñëw na miim yëpp ñëw na lay ndeysaan <laughs> waaw waaw waaw kon uh-huh. loolee dafa am solo sëriñ bi rey gi affaire la rek. Mhm. te léegi li gën a garaaw mbokk yi lañ koy xiirante xam nga bu njëkk da daan naan diw da doon xeex kenn. Mhm. mu jam ko ca garage ba wala mu jam ko ca chantier ba. Mhm. wala mu jam ko ca marché ba léegi nag dañu naan mbokka ma rey na mbokka ma. rey na jabar ca wala rey na doom ca. wala rey na rakk ca. <laughs> te kenn du ko weddi li tax nga xam ne xabtal la nit da wax ak moom léegi mu la dama lay rey léegi waaw. ah boobu de yomb na ci réew mi dama lay rey léegi. te wallaahi bi mu koy wax dëgg ci moom xamul sax lu koy wax loo. <laughs> Oh. waaw moo tax. kon nit ñi jóg. réew mi réew ñëpp dee nañ. non <laughs> gaa yi rey nañ ñëpp. wallaahi yàlla xam na ko. <laughs> c'est am na res boo xam ni ku ko am. Mm-hmm. ba daggal ci sa njaboot gépp nu lekk ci. Mm-hmm. du nu xab tollu mukk ci àdduna du nu xabtalu mukk ci àdduna wallahi du nu mas a xabtalu <laughs> am na it lu nu naan koppin <laughs> am na <laughs> ndeysaan lu ne ci moom mm-hmm. ci booru ndunkurunk mm-hmm. moom it boo ko defee sag njaboot mm-hmm. wallahi warabul kaam lu raar la nag moom waaye lu ama am solo la teyit lu doy waar la ndegam neex na sunu borom njaboot googu noonee dal rek la ñuy def dal rek la def dal rek te nit du leen gis ba ñeme leen ba di leen influencé ba di leen détourné maa ko wax tey jii te bari nay firnde yu ci ne waaw boo ko boolee sax yaasinu jinne yi sax day gën a ti doy waar wala yaasinu rawxaan yi <laughs> ci gàttal res ba resul lal lal moom waaw <laughs> ndeysaan <laughs> waaw waaw bëgg ñëpp aaru rek ñëpp aaru rek <laughs> wallaay yàlla xam na yàlla na yàlla xef dool yi macha allah rabbi amatina solo Cheikh Moustapha waaye daal xam naa ni moom mënta ñàkk ñu ci wax parce que fi mu ne mm, daal réew mi dafa jaxasoo te kenn xamatul li xew li mu doon quoi vraiment jërëjëf Cheikh Moustapha mu mel ne amatina solo waaye bokk na ci est-ce que damay laaj ba xam tamit li nga xamante mooy waral euh, nit nekk tam ci sëyam mm-hmm. moo xam ci ku góor wala ku jigéen néegu sëy yi mm-hmm. parce que ñuy gis jékki-jékki ñaar ñuy sëy ba yàgg jékki-jékki kenn ki mel ni dañ ko xabtal mm-hmm. sëy ba dootu ca bëgg dara mm-hmm. est-ce que loolu fi mu ne tam bokk ci comme li ngay wax léegi ni ci def def yooyu tey waaw xam nga xam nga ñaar dafa am foofu nit léeg-léeg dana génn këram boo nee ko lu xew du la ko mën a wax wér na hmm. bu moytuwul sax mi ngi continuer di def la mu doon def ci këram lépp waaye manul fexe ba wax la ni la ni lii moo tax ma génn sama kër benn beneen bi si tegu xabtal ak naawtal dana def lool xabtal sax moo dàq loolu mooy nga ne ci sëy ba ci yàgg nga ni bëggatuma dara sëy bi taseeg góor gi da koy def jigéen di ko def bëggatuma ci dara nu dugal tànk dugal bopp nga ni bëggatuma dara te bu nee la lan moo xew yow manoo wax li xew lan la ah loolu nag xabtal da koy def. mooy xëy li nu naan du da daatle. du da daatle googu nag bu amee xam nga fan lay tàmbalee. galaaj gi balaa ngay xam ne mi ngi tàmbali jàpp. waa ji day tëdd ci kaw ndaw si tëdd ci suuf baa ndaw si tëdd ci kaw waa tëdd ci suuf. gis nga ni ngi ci digg bi. Hmm. bu yàggee day puus ba ca but ba. bu yàggee day dem ca saal ba. saal ba bu yàggee day dem ci ëtt ba. Eh, eh. bu yàggee day génn. nii lay demee. ni nu noo amul solo amul solo moo tax lu gis te mosoo ko gis sa kër rek. Mm-hmm. moo xam ci sa jabar la moo xam ci sa doom la wut ci matuwaay. Mm-hmm. ndax gaañi saay saay nanu. Mm-hmm. doy na nanu waar. yéeme nanu. moo waral jigéen bëgg ba si yàgg ni bëggatuma. te wallaahi gis nga bu génnee ci sëy bi. day wëlbatikuwaat lu mu yor def ci mhm. ngir delluwaat ca te xamul lu xew mhm. moo waral it góor gi bu ci génnee muy wëlbatiku lu mu yor def ca te du tax mu xam lu xew mhm. fekkati yooyu yàq-yàq gi nii lay demee Seex Taal macha allah wallaay ndeysaan doy na waar kon tam ba tey de mel ni tam ci nit koo xamante ni fi ne lu lu lu ko dal tey bu subaa bu tane ñu def ne pare nag leneen daal di koy dalaat mooy mel nit ku am ay taab nit koo xam fu ñu ko fekk mu ngi feebar wala yu mel noonu kort korte korte mën na génne ñetti jàngoro ba juróom-ñaar korte ci nit waaw tey tànk bu néew bi la suba taab ci diggu gannaaw la gannaaw suba taab ci fóot gi la gannaawaati suba hmm, taab ci jëmm ji benn taab laa la wax xam nga mm-hmm. beneen bi si tegu korte xanaa xamoo dana dem ba nu def la loo xam ni mhm. da ngay romb aw weñ weñ ngi xotti sa tànk bi góom bi dootul weer sa dund korte dana ko def nga nga faj ba sonn nga naan pourtant góom rek laa ko tegoon baa ngay jékki-jékki di néewile waaw wow waaw bu baax sax waaw ni naan la danga xorom danga nga danga da nga nàngam da nàngam ngay fajoo fu ne di fajoo nu ne du la tax a moo tax ku xam li xew non doo toog doo taxaw loo muslu na nga ko xeeb te du la teree gëm yàlla nag surtout mm-hmm. waaw surtout loolu mm-hmm. du la teree gëm yàlla nag mm-hmm. xam nga nit ñi dangay ngay léemu ni naan la xanaa gëmatoo yàlla kalakay wax moo moytiwul waaw mooy tax sax ba dootoo gëm yàlla ndax la lay naqadi moo la koy def moo la koy def yàlla na ci yàlla musal <laughs> mboolem julli mm-hmm. macha allah amatina solo xanaa bu mujj bi rek fi mu ne mooy xanaa daanaka mboolem lii fi waxtaan yëpp buñ koy xool kon fi mu ne ci ak mbon la tënku bu baax ci ak mbon ce que tey jii bagage yi xorondom mm-hmm. lañ bëggoon nga wax nga may ñu ci tuuti mm. waaye est-ce que tey kaaraange mi ngi ci parce que gis nañ xorondom tamit mu doon mbir mu doy waar mm-hmm. te du fu ne lay am <laughs> waaw xorondom de seex taal mm. soo bëggee xam ba xam liggéey nañ la am déet xorondom mën na la ko wax benn mm. saraxi xorondom boo ko xasee xam sa mm. xorondom am na sarax boo xasee xam saraxu xorondom ñoom laa wax de nga xam seenu sarax mm-hmm. dootoo ñàkk ci sa dund doo yor njaboot gu nuy yërëm saraxu xorondom nag xam nga mësoo ko dégg maa la ko wax nag. <laughs> loolu kay saraxu xorondom. sarax <laughs> yow nga xam ni xorondom yi lii la nu bëgg nga saraxe ko fa. Mhm. <laughs> bul ko teg ci dugub de bul ko teg ci ceeb kese de saraxu xorondom. Mhm. boo ko xamee laa ni la. Mhm. doo jur doom ju nuy yërëm. doo am xarit bu nuy yërëm. doo yor kilifa gu nuy yërëm wallahi sa baay bi la jur sax bu doon da nga juddu fekk ko ci ñàkk. Hmm. yow nga xam sa roxo xorondam sama borom dana la dimbali ba nee naa la mm-hmm. du ñàkk mbooloo mm-hmm. du ñàkk bayre mm-hmm. te du ñàkk wér te nee naa la suufus xorongom day dox ci bayre waaye day dox ci kaaraange waaye nee naa la boo taxawee ci diggu xorondom benn xorondom yéegu la wallahi liggéey nan la ba nga yàqu xorondom mun la liggéey du la nangoo yéeg seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaw ci gàttal. <laughs> ndeysaan. si te te te te. waaw waxaguma la de suufu xorondom goo boo lekk alxuraan. Mhm. waxaguma la de xorondom buy dugg ci kàmba gi ak gi génn ci kàmba gi nga am si ñetti ñett waxaguma la la muy jariñ de gii dugg laa la wax de. Mhm. Ah, am na lu muy wund gi génn am na lu muy wund waaye nga dem ci kàmba gi toog fa. Mhm. di xaar biy dugg ak bii génn. <laughs> bu ne am ca ñett loolu nag beneen affaire <laughs> am na bu koy juróom ñaareel hmm. waaye ci rond point xorondam gi la nekk mooy fa nu sàkku seen yoon ya hmm. fa koy jële mooy ju juróom ñaareel waaw waaye nee naa la bu ci ne ak li muy wund te bu ci nekk boo ko jëlee am na ci lu muy dox boo ko defoon juróom-ñaari fan gisoo ko wër mu ba gis ma man Moustapha Guèye man maa la ko wax loo doy waar laa lay wax xorondom am na sarax <laughs> moo tax nag beneen affaire la <laughs> waaw mm-hmm. kër yi daan am xorondoom dëgg mm. dan naan la borom barke fi ne woon mm-hmm. wala boroom xam-xam mm-hmm. maa la ko wax tey foofu laa ci sañ yàlla oh. <laughs> ah. ndeysaan tarkal eh, lan ngay may gars yi ak kàddu yu mujj yi ci jotaay bi tey macha allah xanaa rek di leen baaluwaat ak ndax wax metti na mhm. ba ci mbokki doktoor yi bu dee wax ci am na koo xam ni jàpp nañu ni mhm. lor nanu ko ci te mu ne ca yoon wa yàlla na ko yàlla dimmali ci la mu ne mhm. waaye moo ma baal nu àq ci wax ja xam ni moom taxul nuy wax ñay nuy wax xam nanu ñan lanu te ñoom it xam nanu ñoom la ci gàttal di waxit di baaluwaat àq mbokk yi ni teewlu Seex Taala mhm. ba léeg-léeg di ci xuloog sax ak seeni nawle di waxaat ni mbokk yi nuy teewlu mhm. te bëggunu fe fu nuy dégg lenn lu nu naqadi mhm. waaye di baaluwaat àq ci weer wu sell wi ci koor gu màgg gi ci mbaaxug yàlla ak màggam ni wax loolu waaye di wax ni Seex na nit ñi di muslu tey moytu te bàyyi tooñ ndax gàllaaj daal gis naa li koy toj tooñ la. Hmm. waaw. takk gàllaaj bu baax ba pare tooñ. te nit ñi bañ di jaawale di dajale ak loo moom du benn yor alal. Hmm. doo ci dimbalaate. Hmm. bu yaakaar ni yaa moom de. da dajale li nga moom da koy joxe. te du la moom yaa moom. li la moom nag doo ci lekk doo ci naan. doo ci solu doo ci maye doo ci saraxe waaye dama xamul fan la lay jëme loolu rek dama jaaxal <laughs> di moo tax yàl na nu yàlla dolli sutura di sant nag waa télé bi mhm. taxawaay gi nu am mhm. ba di mën a jaami yàlla yi mhm. luy dal seen xel yàl na yàlla barkeel tele bi di ziyaar ñépp di ziyaar sunu imam bu baax bi di imaam Babacar ak wëllëreem boobu mhm. di Seydi Maxtaar xam ni foo leen gis Ousseynou ki Assane la mhm, di kilifa it mhm. waaye di ñaanal ñëpp jàmm di ñaanal ñëpp sutura di waxit am saa gi yàlla na doon lu wër àdduna tey jariñit àdduna surtout waaye di sauver sax foo xam ni mhm. Moustapha yeggu fa Taala yeggu fa mhm. Samba yeggu fa mhm. Mor yeggu fa Demba yeggu fa yàlla na ko yàlla def ci barke yeneen bi ndax seetaa la nga jàkk ji ngay jullee sax barke yàlla nga fay sàkku dëgg la waaye kër gi nga yeewoo mm. barki yàlla nga fay sàkku mm-hmm. waaye tele bi mm-hmm. barki yàlla rek moom lañ fiy sàkku ndax mu amee barke mm-hmm. liir bi sax dana koy bëgg di dégg yàlla def na ko fi waaye yàlla na nu ko yokkal yàlla na nu ko yokkal yàlla na nu ko yokkal ndax ñun jaami yàlla yi rek nu yittee waruñu leneen yal na yàlla dooli sutura lii laay wax mbokk yi mm-hmm. di baaluwaat ak ñëpp Cheikh mm-hmm. Talla macha allah mm-hmm. jërëjëf Cheikh Moustapha wax dëgg yàlla ak euh, xamatuma luñ ci luñ ci war a teg parce que wax dëgg yàlla kaddu yi mata matale na lépp saa yi ren wa baatin dan xanaa rek ñaan yàlla suñu borom mm, dolli la sàmm dolli la aar dolli dëgëral taxawaay bi yokk mbooleem wér gi mu yokk ko saa yi ren wa baatin dan ba diine ji nga ne naa la nga ko askan wi ndax nee lu ñu waxtaanee lu ne rek daanaka buñ la dégloo xam ni da nga cey junj rek bàyyi ndax lépp munoo munoo koo munoo koo xajul sax far ci jotaay te rawatina ci wàll fàll wàll fànn fi bi ngeen féete du li ngeen xam lépp ngeen di mën a wax donc moo tax toujours dañuy dinañ laaj actualité yi nga xam ne day xew ci biir kër yi waxtaane lii xew ci biir kër yi waaye waxtaane tamit lan la ci xam-xam indi ak alxuraan lan la ci indi ak yan la ci mag ñi indi woon moo tax suñu waxtaan buñ ko xoolee yooyu kon mënta ñàkk fi xam-xam boobu dajee itam ñu ñaanal ko moom mu wér te am jàmm te am xew te am taw feex ndax xam naa ni yéene na ñëpp jàmm kon yàlla na yàlla sama borom defal ñu dégg ak topp waaye itam sant bu baax a baax mbooleem internet yi nga xamante ni ñu ngi topp Amsa TV mm-hmm. la télé solution mm-hmm. nee naa loolu rek mooy suñu yittee li ko mm-hmm. sëñ bi waxee maanaam jëriñ askan wi rek moo ñuy te te jëriñ leen ci norme yi nga xam ne mooy siraatal mustaqim mm-hmm. parce que boobu surtout parce que waaw jëriñ dafa bëri ay façon mm-hmm. waaye jëriñ ci norme yi nga xamante ni mooy li siraatal mustaqim indi mm-hmm. muy tege ci yoonu siraatal mustaqim muy ci yoonu njub ak dëgg dégg ngeen Cheikh Moustapha saa su ne buy tàggoo ni muy tàggoo mooy nañ leen moytu tooñ parce que dégg nga ko léegi ci kàddu bi mujj tooñ mooy li nga xamante ni moo mën a toj gàllaaju doomu aadama kon nanu moytu tooñ kon sant daal gërëm ñaan yàlla sama borom may ñu mm-hmm. fekke waat beneen jotaay kenn ku ci nekk lay bëggam ak yéenam ak mbétam suñu borom mi dul jeexal dara am lépp sañ lépp mën lépp yal na yàlla jàpp na la lépp sant bu baax a baax équipe technique beeg caméraman yeeg mm-hmm. cadreur yeeg monteur yeeg mm-hmm. ñëpp di leen wax rek nañ wàññi seen lumière bi ndax temps yi moom li ñuy leeral bëri na fi torop fi ne macha allah rabbi <laughs> ah, dégg dajee ci seen beneen jotaay ak seen jotaay yu xam-xam bi jërë ngeen jëf wasalaam